Marina Kabou maa ngi lay nuyu. maa ngi lay nga nekk activiste militante des droits humains membre du collectif des organisations de la société civile pour la protection des droits des migrants récemment ay organisation yu bare bari euh, def benn lettre ouverte pour ñu réformer euh, procédure demande euh, visa yi fii ci Sénégal est-ce que mën nga ñëwaat ak ñun ci contenu lettre boobule. dëgg la ay organisation de la société civile. yuy yëngu ci àq ak yelleefu doomu aadama ñoo def benn bataaxal lancé itam benn pétition donc pétition bi li ko waral mooy dañoo seetlu ne sénégalais yi dañuy rencontrer ay jafe-jafe pour am li nga xamante ne moom mooy visa parce que pour dem ci yenn dëkk yi lu ci mel ni Espagne Italie Belgique wala France da ngay soxla li ñuy wax visa loolu boo ko amul mënoo dugg ci réew yooyu. Euh, léegi ñu gis ne sénégalais yi dañuy rencontrer jafe-jafe yu bari pour am ko dañuy defar seen dossier ba mu baax parce que dossier bi pour nga def ko il faut nga def benn démarche en ligne def ay démarche physique aussi pour mën a am li nga xamante ne moom mooy visa ñu gis ne ñu bu ci bari dañuy def procédure bi mais bu ñu demee ba ci cëppaandaw ba du ñu am visa bi te buñ ko amulee duñ leen wax lu tax amuñu ko te itam buñ ko amulee duñ leen tax fan la ñu mën a jaar ba defaraat dossier bi ba déposé waat pour ñun loolu dafa injuste daal pour ñun loolu dëppoowul ak àq ak yelleefu doomu aadama d'accord nañ nag ndax état boo gis dafay teg ay politique ngir xool dem ak dikk bi mais ñun dañu jàpp ne politique yooyu dafa war a dëppoo ak àq ak yelleefu doomu aadama donc ñun loolu la ñuy xeex ndax kat suñu xarit yuy jóge bitim réew européens yi ñoom dañuy ñëw Sénégal nu leen neexee ñoom duñ fi def ay procédure duñu ut demande visa dañuy jënd billet rek jël seen avion ñëw Sénégal nu leen neexee te bu dee ñun la ñu ne il faut ñun ñu ut visa ut def procédure ñun pour ñun loolu daal c'est une situation injuste boo xam ne dañ ko war a xoolaat loolu tax ñu bind boobu bataaxal donc jagleel ko yenn ambassade yi nga xamante ne ci espace Schengen la ñu bokk ak États-Unis yenn ambassade yu ci ni Italie France Espagne Belgique Canada euh, ak même Afrique du Sud tamit visé nañ ko si pour ñu jéem a xool naka la ñuy changer boobu situation bi sénégalais yi di dund au moins booy dem ci ci ambassade pour déposer sa visa bi sax ñu war ñu war laa mën a dalal wan la yoon bi expliquer la mais gis nañ ne condition d'accueil yi ba léegi dafa des beneen bi mooy li ñuy li ñuy wax ci lettre bi moom mooy. Mm. li ñuy demande dafa bari. kayit yi ñu lay demander dafa bari ñun bu ñu sañoon procédure bi dañ koy gën a oyofal. beneen bi aussi li ñuy demander moom mooy ñu delloo la sa xaalis bu fekkente ne mayuñu la visa moo gën ñu ñu sa dossier ay fan ba pare duñ la may ba pare yi tamit duñ la delloo dërëm au bu ñu la delloowul lépp sax ñu delloo la moitié bi beneen bi mooy ñu fayloo ñi nga xamante ne ñu la ñuy may visa ndax buñ leen leeree ne kii moom dañ koy may kooku moom mun nañ ko fayloo mais ki nga xamante ne jàpp nañ ne duñ ko maye loolu daal li gën ñun dañ ko delloo xaalisam beneen yoon gis beneen affaire bi gis nañ ne état yu ci mel ni France Espagne pour def demande de visa da ngay jaar ci benn structure bi ñuy wax VSF fooy yóbbu sa dossier donc ñooñu ñooy jël sa dossier yóbbu ko ambassade ñu gis ne loolu dafay entraîner ay yenn trafic bay ñenn nit yoo xamante ne sax dañ cee dugg di loo gëmloo yi ne mën nañ leen lijjanti rendez-vous ñooñu sénégalais yooyu di fay yenn montant yu yu kawe comme ay cent mille trois cent mille quatre cent mille ñu jàpp ne loolu daal investissement si nit ko suñu sañoon vraiment externalisation boobu day dañ maanaam moo gën ngay jaar ci ci benn structure balaa ngay jot ci ambassade nga dem ci ambassade bi directement war a mën a déposer sa dossier wala ñu ñu indi affaire visa en ligne Euh, leneen li nga xamante ne tamit dañ koy wax moom mooy gis nañ ne traitement wu demande bi dafay yàgg maanaam bu ñu jëlee sa dossier di xool ndax dañ lay may wala duñ lay may mën na jël weer wala lu ko ëpp ñoom gis nañ ne weer bi warul dépassé fii traitement bi warul dépassé ñetti fan beneen bi mooy buñ la xañee visa bi ñoom duñ la wax lan moo tax ñu xañ la ko ñun suñu sañoon décision bi dañ koy expliquer ñu wax nit ki lii ak lii moo tax mayuñu la visa bu ko defee yow dinga mën a préparer waat bu dee dafa am kayit bu manqué ci sa dossier nga dem uti ko li ñu gis tamit ne mooy ñu sax joxe ay information sur les voies de recours maanaam nit ki fan la war a mën a jaar ba contester décision bi wadd ne fii ñu ko visa au moins nga am possibilité dem ci beneen euh, institution ne leen ah man de déposé woon naa visa mais dañ ma ko xañ te xaw ma lu tax donc ñun affaire yooyu yëpp lañu ñu nekk di kaas ci lettre bi te bu ñu sañoon vraiment dinañu xool solution nuñ koy gérer bu ko defee ñu mën a yombal dem beeg dikk bi parce que kat migration moom droit la képp ku nekk bépp doomu aadama bu nekk yoon may na la nga jóge sa réew dem beneen réew loolu déclaration universelle des droits de l'homme moo ko wax te état du Sénégal da koo xaatim donc bu sañoon politique yi. day dëppoo ak àq ak yelleefu doomu aadama bu ko defee dem ak dikk bi gën a ñoŋ donc loolu lañuy wax ci suñu lettre bi. voilà euh, Marina Kabou bi ngeen defee lettre bi euh, relevé ci ponk yëpp am importance est-ce que après am ngeen retour ambassade yi wala ñi nga xam ni ñoom ngeen doon waxal ci ci lettre bi est-ce que am ngeen ci benn retour bu positif wala négatif. waaw ñun commencé nañ ci am ay retour parce que depuis bi ko lancé ba léegi gis nañ ne citoyen yi ak ñeneen ak ñeneen yu nekk yeneen réew ànd nañ ak ñun ci combat bi donc ñu ngi ñuy woo duñu soutenir duñu encourager duñu jox sax ay suggestion yoo xam ne mën nañ buñ ko tegee situation bi dina gën ñoŋ donc gis nañ ne sax que autorité française yi ñu ngi ñu ngi wax tamit ci question bi pour wax ne ñun li ñu lancé nii vraiment commencé na am impact donc ñun prévoir nañ def yeneen i action fan yii di ñëw dinañ def benn randonnée bu mag pour mën a def doxu ñaxtu en tout cas dénoncer li nga xamante ne moom la Sénégalais yi di dund te bu au delà de ça defoon nañ sax ay demande d'entretien maanaam ay demande yoo xam ne mhm. pour rencontrer responsable ambassade yi ambassadeurs yeeg yooyu pour mën a waxtaan ak ñoom xool naka la ñuy def ba trouver une solution autour de la question des visas parce que question bi moom yaakaar naa ne ñëpp la concerné donc looloo tax bi ko sénégalais yi yëgee boobu ba léegi ñu ngi ciy wax di apporter seen soutien pour que situation bi mën a améliorer parce que fan yi moom mbëkk mi tar na lool. dëgg la yaa ngi jël gaal yi di dem Espagne. Mm-hmm. léegi muy góor di jigéen donc ñun yaakaar nañ ne bu ñu dëgëralee visa yi rek. ñin ñi bu ñu amulee pexe dañuy jël yoonu ndox ndox mi wala yoonu suuf te loolu mën na leen indil ay gàllankoor donc ñun daal suñu sañoon moom affaire visa yi dañ koy xoolaat parce que da ngay gis sax même da ngay nekk ab kat nga bëgg dem benn forum xam nga pour saytu ji xam-xam mais duñ la sax may visa donc loolu daal bëri na injustice bu si nekk te ñun jàpp nañ ne loo gis daal il faut ñu waxtaanee ko. Mm-hmm. te suñu état yi ñu ngi leen ciy interpellé waaw ñu parce que am na loo xam ne ça relève de la responsabilité de l' état donc faaw état yi xool nan la ñuy régler seen question ñun ay citoyen nañ mais dañuy pousse état bi bu ko defee ñu trouver ay solution ensemble parce que état bi yaakaar naa ne état bi c' est nous tout le monde donc ku nekk war na ci mën a dogal loxoom bu ko defee situation bi mën a ñoŋ Mhm. Euh, est-ce que Marina yéen d'accord ngeen si li ñuy wax réciprocité des visas maanaam euh, bépp réew boo xam ne sénégalais daf fay dem ñu laaj ko visa euh, réew boobu aussi buy buy buy dugg Sénégal ñooñ tamit bu ñuy dugg Sénégal ñu tegal leen wàllum visa est-ce que d'accord ngeen si loolu. ñun d'accord nañ ci réciprocité ci lettre bi sax wax nañ ko si donc bépp citoyen bu jógee bitim réew ci dëkku Europe yi wala Amérique ñun lu ñu bëgg moom it buy ñëw Sénégal. mu demander li nga xamante ne moom mooy visa parce que bu ñu jàpp ne bu ñu defee réciprocité touristes yi dootuñu ñëw di Sénégal loolu moom tegul fenn man jàpp naa ne Sénégal réewu teraanga la Sénégal gi dafa nekk dëkk boo xam ne dafa stable te muy tubaab bi ak ñeneen ak ñeneen dañuy ñëw Sénégal ndax kat am na yenn lieu yoo xamante ne mën nañ ko jaay yu ci mel ni ay chute dune du Pelo yu ci mel ni île du Saloum yu ci mel ni Cap mu doon ay endroit yoo xamante ne dafay attirer touristes yi donc jàpp naa ne bu ñu tegoon tey réciprocité loolu du teye tubaab yi dinañ ñëw suñu réew xaalis boobu nga xamante ne dañ koy fay booy déposer visa xaalis boobu mën nañu amal njëriñ ndax mën nañu permettre ñu financer éducation bi affaire entrepreneuriat des jeunes donc man je pense que euh, réciprocité bi lu baax la te lu ñu bëgg la ndax kat. Euh, du am benn impact ci ci yi pour man loolu du du teye touristes yi ñëw Sénégal. Mhm. kon jàpp ngeen ni kon réciprocité mën na réglé problème mu émigration irrégulière bi nga xam ne actuellement problème la si si si réew mi mbëkk meek ñoom mhm. seen. waaw problème la si réew mi mais par contre réciprocité rek du doy parce que question migration dafa xaw a dafa xaw a yaatu. Mhm. loolu dafay nécessiter de large concertation. ay ay waxtaan yu wóot yu xóot pour ñu mën a xool naka la ñuy def ba trouver des solutions par rapport à la question de l'emploi de jeunes par rapport à la question de l'entrepreneuriat par rapport à la réduction de la pauvreté parce que motivation yi nga xamante ne mooy pousse nit ñi di dem yeneen réew bokkul am na ñoo xamante ne ñàkkum liggéey moo tax ñuy dem am na ñoom xam xamante ne dañuy bëgg sàkku ji xam-xam am na ñoo xamante ne dañoo bëgg dem visiter yeneen dëkk mais am na ñoo xamante ne bëgguñu dem bu ñu sañoon ci Sénégal bi la ñuy toog tekkee fi parce que migration moom nu ma ko waxee rek droit la donc bépp doomu aadama bu la neexee mën nga jóge sa réew dem beneen réew. donc euh, pour lutte contre l'immigration irrégulière loolu moom dafay nécessiter ay concertation mm mais réciprocité bi. mën na permettre ñu régler une partie de la question. merci beaucoup Marina Kabou ci tontu bi nga tontu suñuy laaj. merci beaucoup. voilà Marina Kabou maa ngi fàttali ni euh, activiste nga nekk militante des droits humains membre du collectif des organisations de la société civile pour la protection des droits des migrants merci Marina Kabou.